allo. waaleykum. mu ne lan Sarr. waaye du. Ah, waaw da ngaa ah, la Cheikh Sarr na ko laaj jabaram li ko dal dal doon doy na ko sëkk da ko dala ko rek waaw ak problème yi ko dal waaw waaw yéen itam ñuy topp seen tur la Sarr la waaw ah. kii tamit jëpp nañu de ñun lay jàngal ak Cheikh Sarr ñun li mu def dinañ ko def bu ko jotoon ñuus man bi mu ne Cheikh Sarr dama tiit sax waaw yow itam jigéen daa gëj a dugg nag baatu jigéen la kii du jigéen

maa ko wax soxnaam waaye yow merde waay. waaye yow kii dëpp nday li sax ñu bañ ko ne woo. waaw waaw dëpp ko ni ñu ko. waaw bu ko dëppee ñu baax ñi dañuy dugg ñu baax nag xaj bu amee problème ma ngay sonné waat de kii Mbadou Momati. allo allo waaw. mu ne baane la. waaye baane eh eh eh waaye ñii nag fay tey yem nañu waaye yow. mu ne kan. nooy baan eh fiiru ndooy band fiiru ndooy band bu la ñu fontoo alors douze la télé Sénégal point com ngeen nekk nii